Moustapha ci ginnaaw mu nuyu donc Imam Moustapha mm-hmm. ñi waajal lii di gàmmu kër bi xam naa nañ ci xuus bu baax ci kanam tuuti waaye ñu war a waxtaane ci euh, ki nga xamante ne mooy sëñ Moustapha Cissé bu Pire nga xamante ne nekkoon na ambassadeur lu bari mm-hmm. ci diplomatie ci Sénégal mm-hmm. bu ñu ko waxee rek day dem ci moom waaye ngir gën a xuus si waxtaan bi laata boobu dañuy dem suivre euh, xool côté régie bu dee pare na Euh, li nga xamante ne moom mooy euh, portrait bi nga xamante ne def nañ ko ci Serigne Moustapha Cissé bu Pire. Mhm. ki nga ki nga xamante ne mooy Madji Guène Sow defal ñu ko bu dee teewtu na rek xam naa dinañ ci ñëwaat léegi rek. waaw ci kanam rek ñu daal ci dellu si incha allah ci boobule portrait bu am solo. bu am solo li mhm. ma waxee comme ni ñu ko waxee rek bu fekkoon nan si wàllu juddu nan nga ñu mën a wax ci sëñ Moustapha Cissé bu Pire. waaw kay jërëjëf euh, soxna Fatou ñu ngi lay ziyaara bu baax. Mhm. Euh, alxaaji Moustapha Cissé mi ngi ganee àddina Pire 1929 euh, ci ñaari waajur yu tedd baayam mu ngi tudd alxaaji Ahmed Cissé Pire nekkoon muqaddamu Cheikh Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu Sénégal yëpp xam ko euh, baayu alaaji Ahmed Cissé mi ngi tudd Tafsir Abdou Cissé laataa ñuy gën a ci waxtaan bi nañ daal di dem jëli portrait bi nga xam ne ni am na solo bu baax a baax ngir gën a mën a sóobuwaat ci waxtaan bi ñu ànd ci ak waa registre ñëwaat di sëtu tafsir Abdou Birane Cissé ci këru dine gu mag yi di jamaal ci diggu saalum Serigne Moustapha Cissé mi ngi juddu ci atum 1933 ca ji mën Mansour si Malick moo ko tudd dippee ko Serigne Moustapha Sy Jamil mu jàng alxuraan laata muy dugg ci école nasaraan daa di xam dara ci nasaraan ba mën a jàng lettre yi doon ñëw ci way juróom bu góor way juróom bu góor amoon ca moom la mu bëggoon ndax sëriñ Moustapha Cissé mënoon na bu baax interpréter diggante papaam ax yii di tubaab yi gannaaw bi mu demee Mbour di fa jàng fiq ak naxw ak yeneen xeeti xam-xam ci lañu ko jox ndigal mu woye li njàngam ca Jamal ci boori 1952 mu jàngit nasaraan jaare ko ci jokkoo ak centre international téléguidé ca Toulouse jaare fa am bac ci atum 1955 am itam bagu arab ci atum 1962 Serigne Moustapha Cissé doonoon ku bëgg xam-xam lool gannaaw gi la def stage ca école normale supérieure ci Algérie ci atum 1963 ak it ci institut El Mouraj ca Liban atum 1964 teg ci ca université bu Liban ci atum 1965 mu nekkoon jàngalekat ak diplomate Moustapha Cissé Pire niki atum 1961 la tàmbalee jàngale ginnaaw juróom-ñetti at yim mu jàngale ci la doog dugg ci mbiru diplomatie ci 1968 ci la ñu ko tab conseiller d'ambassade ci Arabie Saoudite jamono ji mu ñëwee woon congé ci ndakaaru ci la ko président Senghor xamale ni rafet nu la lool liggéeyam ci 1970 jàpp 1990 mu daal di teewal Sénégal ci ay réew lu ci mel ni arabi Saoudite Égypte Koweït ak Tunisie Serigne Moustapha Cissé nekkoon na ab àndandoo bu dëggu ci kanamu président Senghor Diouf ak Wade moom nag sargal nañu ko lu bëri dem na sax ba am médaille commandeur de l'ordre nationale du lion ci atum 1975 yamu fa ndaxte jot naa am tamit médaille grand officier ci atum 1979 mu doon yëngatu ci wàllu politique li ni mel mu ngi ko doon tàmbali bi mu nekkee ab ndaw waaye tamit nekkoon ab taalibe ca Mbour jamono jooje sax jot na samp benn comité ba nga xamante ni ay étudiants ñu doon jàng jàng làkkum arab ñoo ci nekkoon banqaas bile mu daal di ko duppee BDS maanaam bloc démocratique sénégalais ci atum 1959 mu daal di nekk secretaire général kuréel jàngalekatu arab yi kii di musafa Cissé jot na bind ay bataaxal jëmale ko kërum taskatu xabaar yi ak it réewut jullit yi nekkoon ci Afrique jëmm ji mi ngi doon amal ay waxtaan yu am solo ci Sénégal ak réewub Gambie ambassadeur bile jàmm la doon doon ci diggante réew yi ak doomu aadama yi pir daal di wéet ziyaara jamal bi nga xamante ni moo ko nasoon jooy nanu ko góoru yàlla bi doonoon jàngalekat diplomate interprète conférencier islamologue di jiite lu baax defoon na ab liggéey bu mucc ayib laata muy wuyu ji boroomam niki ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juin 2017 fii ci ndakaaru bés boobule ci lañu ko gunge ca këram bu mujj foofee ca Pire macha allah ñu lay jaajëfal bu baax ma jigéen saw portrait bi am na solo bu baax a baax waaye gis nañu euh, diplomatie comme ni ñu ko waxee ci biir reportage bi waaye mu nekkoon waaw mu nekkoon euh, góor goo xam ne nii mhm. euh, gu jara bàyyi xel la ci ay digleem waaye tam ay jëfam ci li nga xam ne nii moom ci la ñu mën a sukkandiku parcours bi nga xamante ne tàmbali nga ko dëgg la waaw comme présiser rek ci anem bu ñuy wax dañuy wax 1933 mhm. mais mu ngi gën a àddina 1929 loolu mooy li gën a wér. wér am. waaw day waaw waaw. Mm-hmm, mm-hmm. bi ci des euh, booy dugg école. Mm-hmm. xaw doon mag. léeg-léeg euh, da ci daan am. mais 1929. ci la gane àddina. Euh, wax na ma ko moom ci boppam dégg naa ko ci alxaaji Saïdou Wele bu Louga dégg naa ko ci sëriñ Abdoul Aziz Al Amin. moo jëlee ko ci source yu wér. way juróom mooy maam Ahmad Cissé Pire. maam Ahmed Cissé ki ko jur mooy tafsir Abdou Cissé seen cosaan mooy wanaar wanaar mi ngi ci Saalum ci département bu kilaan hmm. ñoom ak famille Sakho alxaaji Ibrahima Sakho ñoo bokk benn dëkk bu ñu cosaanoo hmm. ndax jarga Sakho bi jur alaaji Limaan Sakho ak tafsir Abdou Cissé baayam ñoo bokk benn dëkk muy hmm. wanaar woy juróom bu jigéen mi ngi tudd soxna Mariam Diaw soxna Mariam Diaw moom it ci wàllu famille mu ngi bokk ak waa xaali Amar Fall nga xam ne cosaanul daara ci piir ak xam-xam mën naa wax ak njub tabaarakallaahu ci ñoom la jógee euh, rakku baayam alxaaji Maguette Cissé bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee Cheikh alxaaji Malick moo ko jàngal alquran euh, entre temps bi mu jàng alquran nag booba piir am na ñu sens teel a am école français mm. ndax euh, xam nga piir dëkku cosaan la Euh, Blaise Diagne bi muy def campagne électorale pour nekk député vers 1912 booba dafa bari woon ay Saint-Louisiens ay ñu dëkk Tëngéej ak euh, gore mhm. booba ñoom ñoo amoon droit pour voter. d'accord euh, bi Blaise Diagne ñëwee nag di def campagne. Mhm. ñaar yàlla dogal na campagne ba jur na ko ci la jàndal maam Abdou Cissé bërëb bu ñu def jàkk muy zaawiye tafsir Abdou Cissé. Mhm. bi ci des comme ña fa nekkoon amoon nañ droit voté ci réew mi amoon nañ droit seen doom jàng biñ ko sàkkoo ci Blaise tabaarakallaahu ci le pire am école 1912 mhm. mhm. école ba fa la jàngee français mhm. ba am certificat waaye boobu daf ko boole ak daara ji ba mokkal alquranul karim euh, comme niñ ko waxee ci portele bi bi mokkale alquran way jël mu daf ko yóbbu jaamal pour mu jàng xam-xam euh, bi muy dem jaamal daf ko booleek soxna sa tussi bu Seydil Hadji Malick moo ko jëlee jaamal moo ko jëlee mbir ca gaar ba yóbbu ko jaamal pour mu jàngi xam-xam euh, waaye booba jaamal tàng na euh, hmm. xaw la neex ndax daara euh, booba pire ko dàq hmm. sëriñ bi nag yàggu fa lool hmm. daa di wàññeeku ñëw kawlax ci maam Khalifa Niass woy juru alxaaji Sidy Lamine mu jàngal ko lu bari ci wàllu xam-xam jàngal na ko ba jàngal ko ci wàllu luxal arabia littérature téere bu ñuy wax daaliya mhm. nga xam nañu jàng njàngum cosaan mhm. pour ñu mën a dégg arab dëgg téere boobu tabarakallahu dañ ko daan yittewoo mhm. euh, mu jóge fa nag daal di ñibbi si Pire na ma bés dañ ko bind lettre arab mu ne baayam man dañ maa bind lettre arab mais mënuma ko tontu baayam na ko loolu de gàcc la doomu soxna bu mënul tontu lettre arab euh, waaye déglu baayam dem Tiwaawoon gis maam Xaaji Mansour Cheikh al Xawmi euh, mu ne ko Moustapha daa dama bëgg mu jàng maam alxaaji Mansour moo ko jëlee piir yóbbu ko Mbuur ci góor gi alaaji Ahmed Wadd euh, doomam muallim mi ngi dëkk bi ñu tuddee Musdajar tey boole ko ak góor gi ñu tuddee alxaaji Yusuf Fall mu nekkoon ndeyu daaraam euh, tabarakallahu lu bari fa la ko jànge ci wàllu xam-xam yu bari. Mm-hmm. nee na ma am na téere yoo xam ne alxaaji Mansour moo tax jànguma ko ndax daf daan wax ne dafa am yéene jàngal ma ko. Mm. comme nañ ko waxee ci portrait bi moo ko tudd bi mu ganee àddina. tuddee ko sëriñ Moustapha Sy Jamil. Mm-hmm. Euh, li waral tur wi nag euh, bi mu ganee àddina. Mm-hmm. baayam dafa dem Tiwaawan di ko wax sëriñ Babacar si booba sëriñ Moustapha Sy Jamil du mag lool euh, fekk mu ngi ci buntu sëriñ Babacar si maam Ahmad si se na ko am nga rak bu góor mu ne ko bàyyi kanaa mën nga koy tuddee alaaji Ahmad si se na ko waaw waaw googa nag ca la mënul dellu ginnaaw mhm. moo tax alxaaji Moustapha moom mag ki turundoo Serigne Moustapha si Jamil macha allah ah, boo daan xool gàmmu pir tabarakallahu turundoo Jamil yëpp dañ daan ñëw accompagner ko buy dem ci guddik ah, gàmmu ga mhm. ah, bi mu jógee Mbuur it mhm. ñëw na Thiès ci kër Maalaaji Mansour am na fa ab diir Tiwaawan def na fa diir bu ndaw sëriñ Mansour borom daara ji jàngal na ko ci wàllu luxal arabiya soxraw sitta moo ko jàngal jàngin mu wér nag ndax ba ni muy génn àddina daf ko mokkal bu ñoo soxraw sitta mooy juróom benn yi dàq wéy ci arab te laata yonent bi sallallahu alayhi wa sax di gane àddina mm-hmm. lañ doon dund nga xam ne borom xam-xam yi jàngale alquran dañuy wax ne boo bëgg a ne a firi alquran firi bu leer faaw nga jàng tabaarakallahu téere yooyu ñu am nañu koy tuddee muallaqaat euh, tabaarakallahu sëriñ Mansour si borom daara ji moo ko jàngal euh, li tax ma xam loolu it mhm. daf ko dañ daan toog mu koy tari lu bari bis ma ne ko bi yow lii foo ko jàngee mu ne ma borom daara ji moo ko jàngal mhm. euh, xam nga chanraaw jaahiliya comme ñoom oustaz Assane xam nañ di ci xew xay xays moom ay waxam dafa xaw a doy waar mm-hmm. benn bis day jàng ba sa kanam sëñ Mansour di ko na ko sama rakk jàngal luxa bi dégg maanaa bi waaye li ñuy wax day su ko def de uh-huh. ndax xam nga day wax ci wàllu jigéen uh-huh. xam nga arab yi bu njëkkoon laati lislaam amoon nañ jikko yoo xam ne uh, tabaarakallahu xaw na doy mm-hmm. uh, ci gàttal daal loolu mooy parcours jàngum daaraam. ginnaaw a xam ci sëñ Moustapha Cissé ci œuvre naam euh, œuvre yi euh, bokk na ci ay taalifam. Mhm. Euh, masalan am na téere boo xam ne bi mu ko bindee sax avant muy génn ci la génn àddina. Mhm. ñoom oustaz Assane xam nañ ko. Mhm. minal kuttaab ila diplomatie. maanaam jógee ci daara. rampe ba ci diplomate. te lool wax dëgg yàlla nekkuloon lu ñu daan séentu ci doomu daara. doomu daara moom waaye ci xarañam. Mhm. ak góorgóorloom ak njàngam ci la ko tabaarakallaahu dem ba am si diplomatie loo xam ne tabaarakallaahu yéemoon na ñëpp. Euh, bokk na ci téere yim taalif mushkilaatul aalamul islaami wa ilaajuha fi dilli al awlama maanaam problème bi nga xam ne monde islamique am na ko te pour ñu man ko régle problème boobu faaw ñu dellu ci mondialisation yi nga xamante ne tey tabaarakallahu moom la ñëpp di dundu téere boobu it bokk na ci nga xam ne taalif na ko mm-hmm. mais fii may waxe ak yoon ba léegi kenn moolagu ko bokk na ci al umma al islamiya mm-hmm. wa tax wa tax wa taxdiyaatu al aalamul muasara maanaam monde islamique défi yim am ci jamono bii ñu ne yoo xam ne am nay problème yu bare bare bare bari tabarakallahu téere boobu taalif na ko ak téere bu bu bu ñu tuddee yenent bi muhammad kawnuhu uswatun linnaas nekk gi mu nekk modèle ci doomu aadama yi yëpp euh, lii moom tabarakallahu taalif na ko ci ay téere yoo xam ne euh, mu ngi ci sunuy loxo ci wàllu mbind waaye kenn euh, moolagu ko mhm. bu dee ci wàllu euh, lu ñuy tuddee wàllu xasida am na it xasida yu mu taalif mos na ma nettali ne na am na génn góor gu ñuy tuddee góor gi Cheikh Samba Gueye bi mu nekkee Thiès daan na ko jàngal defoon na ci moom benn xasida euh, xasida ba nag mm-hmm. daf maa xaw a réer mm-hmm. mais Cheikh Mansour si borom daara ji mm-hmm. moom it defoon na ci moom xasida daanaka loolu sax ci mu jug dundam la dafa dem gàmmu Tiwaawan Euh, sëriñ Abdoul Aziz Al Amin xaw a jàpp. moo ko demal kër sëriñ Mansour nga accompagner fu ngeen dem jumaay sëriñ kër si nee na bi mu génnee rek gis nit ñi dar ko ci la xarixa bi yëngu. mooy lii tax doomu aadama yi woy mm-hmm. mu ne mahabbatukum fi nnaasi tasdaadu daiman bi annaka yaa cheikhi karimun mukarramun mu ne cofeelu nit ñi mm-hmm. ci yow dafay dafay dolleeku ndax kat yow sama sëriñ ku tedd nga waaye ku yàlla teral nga mu waxaa ne xalifatuna al mansuuri misluka naadirun fa yaa laka min cheikhin manaqibuhu yemmu xalifa bii nga xam ne mooy cheikh cheikh Mouhamadul Mansour gis ku mel ni moom lu néew la loolu nag arab nangu na ko euh, waxin la woo xam ne majaas dina ko nangu maanaam gis ku mel ni diw léeg-léeg ñu ne diw kenn du moom euh, foofu la yoxee Euh, mu ne man daan maa ngi yéemu ci sëriñ boo xamante ni ay manaaxibam ay darajaatam toujours dafay gën a kawe euh, ak yeneen yoo xam ne tabaarakallaahu euh, bind na ko mhm. ginnaaw loolu donc ay njàngale yu bari yoo xamante ne rek mën nañ koo retenir ci nga xamante ne mooy sëñ Moustapha Cissé bu waaw njàngale yu bari daal dëgg yàlla def na ko man këram gi ci entrée bi Pire la ñuy tuddee Firdawsi Euh, falaa nekku comme sëriñu daara mhm. en même temps yor jàkk ji di ko jiite man ak moom daan nañ bokk benn darsu darsu di jàngale xam-xam mhm. fa am benn bis dafa joxe darsu ba noppi risaala mhm. muy téere bu am fiq bu am solo ci fiq madhab imam malik ma ne ko sëriñ bi mu naa ah, ma ne ko tabarkal la mu reena ma cheikh alaaji abdul aziz dabbaax daf ma mos a fekk may jàngale mu ne amoon benn mécc tabaarakallaahu bu dul jàngale boobu nag mooy jàngale bi ñu xam nga xam ne dafa nekk benn maître jàngalekat waaye nag bu dee ci wàllu njàngaleem ci comportement am liñ ci mën a jàngat tabaarakallaahu bari na muy nit koo xam ne ku ku baax la ci mhm. gàttal nit ku bari woon njariñ mhm. nit ku tabe woon bu amoon reconnaissance ci doomu aadama ku mos a gis rek tabaarakallaahu bu la xamee dootul la fàtte ba faaw euh, nekkoon koo xam ne ku wuufoon njabootam waaye ku bëggoon réewam waaye ku bëggoon tabaarakallaahu piir gi nga xam ne fa la dëkkoon surtout xam-xam ak nitu daara daf ko bëggoon lool lool lool lool euh, tabe it nag moom yemul si woon ak kenn tabe tabaarakallaahu mënoon a joxe lool lool lool lool ñun moo ñuy yar yar gu wéra wéra wéra wéra wéra daanaka ñun ci daara ji lañ nekkoon mën naa ne quinze ans lañ dund dund koo xam ne jege nañ ko lool mais tabaarakallaahu jàngat nañ ci moom jàngat yu bare bari moo tax benn bi sax euh, ndeysaan comme nitu daara euh, wenn as bu ñu doon def ci moom dama ko xool ne ko daal bi cheyqi habibi nafuu amma xutrana bi bazlin wa nusxin suma waslin bi rahmina maanaa sama sëriñ bi nga xam ne mooy sama soppe sëriñ bii nga xam ne njariñam matale na mboolem suñuy goox bi bazlin ci joxe wa nusxin di ñu laaye biir ak di jokk mbokk gi ndax saalum fa la maamam cosaanoo yoon ya neexul mhm. dangay dem dëkk du am courant du am ndox waaye mu fa daan am une damay rappelé wu ci ma dafa am benn garde du corps bu mu daan àndal mu ngi tudd Seydou Ba benn bis daf ne ma Moustapha ma ne ko la bayko mu ne ma téye leen seen góor gi mu ne ma ñun ñuy xale dañuy dem bay appaat moom mii mag du ko yëg di tëdd ci ay pajaas di naan ndoxu teen di dugg ci néeg boo xam ne day sëgg pour mën a dugg nekkoon ku insaan mutawaadia mhm. nekkoon ku woyofal boppam vraiment moo tax ma ne ko sama kulla aqraanin li ma xaada min chi am mhm. kii daal commencé jamono mhm. kawe na la pourquoi jikku ji ko yàlla joxoon nekkoon wa rahimu bi kullina nekkoon ku ñeewant ci njabootam waaye tabaarakallahu ku bëgg ak njabootam macha allah ci njàngaleem daal mhm. Mhm. li Serigne Babacar si waxoon euh, Cheikh si Ahmed Tidiane gis nañ ko ci moom mhm. bi himmatin aw bi xaalin haza tarbiyatan d'accord maam alxaaji Moustapha Cissé xaal maanaam comportement ci la yaree woon njabootam yëpp ba yow boo bokkee ci moom yan ni doo ko sañ a ah, def rek ah. bi ñu euh, bi ak euh, nu mën a tëddee macha allah gi suba la taala samedi 11 décembre programme bi ni muy tëddee mooy bu ñu xëyee daañu jàng alquranul karim ñaan jàmm am comme réew mi am na lu ñuy dëgmal te saa buy jóg xol yi jóg moo ñu bëggoon a ñaan euh, jàmm am euh, thème bi sax ñu def ko ci assalaam muy la paix incha allah ki koy def mooy doomam Serigne si Cissé nekk xalifaam nekk États-Unis euh, tabaarakallaahu ñëw na bërki démb moo war a taxawee loolu euh, comme bu heure ba jotee 14h30 jàpp 15h mooy cérémonie officielle bi mhm. euh, tabaarakallaahu ci guddi ga ci la ñuy def mawlid bi gàmmu gi nga xamante ni comme ni ko Sénégal yëpp xamee gàmmu ci son la ren la am cent 119e mhm. année boo xam ne ñu ngi koy def depuis 1902 gàmmu Pire ak gàmmu Tiwaawan ñoo maase. muy gàmm guy dajale mbokk waaye gàmm gu baax ci piir nag. boo demee tali ñaa ngi leen di defar. tabaarakallaahu ndox ma ñi amul ndox ña ngoy am. Mhm. Euh, courant ba ma nga leer naññ lépp ci barkeeb yonent bi sallallahu alayhi wa waaye ci mbaaxu mag ñi nga xam ne. Mhm. ñoo amoon tabaarakallaahu xalaat yooyu. d'accord ah. d'accord bala ñuy rek romb foofu faatu. Mhm. Eh, ci wàllu diplomatie lañuy ñëwaat ba tey ci sëriñ bi. ak eh, li nga xam ne ni mhm. eh, moom moo di autorité yi nga xam ne amoon na diggante bu rattax seen digg ci ci janoom ak ñoom. gis nañu ay photo sax yoo xam ne ni dafay wane ay nataal. yoo xam ne digganteem ak président Macky ki président Abdoulaye Wade. waaye tam yeneen ci ay jiit yoo xam ne. amoon na diggante bu ratax ci ñoom est-ce que mën nga ñëw dikkalaat ci loolu. waaw ci wàllu diplomatie dama ci joxe ñaari seede. Hmm, président Abdoulaye Wade moom moom nga tudd. Mhm. dafa am benn jamono Sénégal am benn gan. Euh, fekk sëriñ bi am lu may def loo ma mhm. xëy woo ko ay sept heures mu ma danga may may dama jëm palais dafa am gan guñ fa am président Abdoulaye Wade invité ma. Mhm. nee bi ñu demee ñu nuyoo. président Abdoulaye Wade na ko gan gi day ñibbi dama bëggoon nga gungeel ma ko. Mhm. dinañu ànd ba salon d'honneur. Mhm. ñu dugg ci salon bi président Abdoulaye Wade toog nee na ko Moustapha waxtaanal ak gan gi mu xam ne am nañ ko mel ni yow. Euh, beneen bi doomam Karim Wade dafa ñëw Pire. Mhm. Euh, na ko man xaw ma la woon mais bi may organiser aussi bi fu ma dem ci àddina bi ñu ne ma ana Moustapha Cissé. damaa dem ba xaw a gêné wu. xamu ko laata xaw ma xaw xaw xaw ma la woon avant tey. juuf mhm. euh, Diouf. président Senghor moom tabaarakallaahu ñoo bokk lépp. ba ci président bi fi ne wax dëgg yàlla. Mhm. Euh, Moustapha doguma la sax. Mhm. Euh, vite fait diplomatie boobu noonu. dama liir benn waaye bu ñuy wax amadu Diop. diplomate la. mu bind repère et grandeur de la diplomatie la ko dalee ca Senghor. Mhm. Abdou Diouf ba tàmbali si Abdoulaye ndax cinq la ko génne. Mhm. mais mun ngi cay rendre hommage sëñ Moustapha Cissé. Mhm. te ku ne xam ne diplomatie sénégalaise. ni mu amee doole ci àdduna bi yëpp. Sénégal mu mun nañ ko. mën na mën nañ ko xeebee lu nekk ba mu des diplomatie mhm. te moom dafa bokk ci ñi nga xamante ni ñoo mhm. taxawu diplomatie sénégalaise boobu d'accord macha allah d'accord ah. ñu bàyyi la rek waaw Oustaz Assane Sall mën na ñëw ci ci exactement moom euh, Moustapha Cissé de Moustapha Cissé mhm. moom sax euh, comme ni nga ko waxee itam ci digganteem ak Sidi waaye Moustapha Cissé daanaka booy wax ci moom doo am fooy tàmbalee euh, mais li mu ci wax yaakaar naa Sénégal yi mën nañ ci jàngee personne bi pour xam kooku ban dimension la amoon amoon Mm-hmm. sur le plan national ak international mm-hmm. mais bokk na ci sur le plan national bi itam mm-hmm. moom moo nekkoon euh, secrétaire général bu fédération des associations islamiques du Sénégal fédération des associations islamiques du Sénégal boobu ñu ngi ko créé en 1962 li mu génnee ci ay euh, borom xam-xam ak ñu jàng ñoo xam ne ñu ngi continuer di jàngale wala di def leneen loo xam ne réew maa ngi ciy jariñu boo ko doon recensé doo xam ne fédération boobu ah. daanaka ñu baree bare am nañu possibilité wu dem jaari ji jàng ji bitim réew. bitim réew ci fédération boobu lañ jàngale. Mm-hmm. Euh, siège baa ngi fii ci point 1. Mm-hmm. moom ba ci mujjantalu dundam sax. Mm-hmm. ba léegi sax mën nga wax ne am na fa bureau boo xam ne. doon na ñëw toujours. man ak moom foofu lañ ah. mujj gisee. E-, exactement ci ndax dama fa dem la 7 euh, février. 2017. war a dem Maroc def fa benn euh, formation. Mhm. mooy takminul mhm. aimma. Mhm. fa lañ tàggatoo ndey saan bureau boobu keroog keroog lañ mujj gisee. Ah, comme tabaarakallah waxtu bi waxtu bi xam na. Ah. beneen ba sax mooy. Ah. bu ñu fàtte ne nekkoon na. nekkoon na commissaire au pèlerinage mu fa loo xam ne itam uh-huh. Uh-huh. parce que Moustapha Sy dafa amoon personnalité wallaay wallaay moo tax li mu defal Sénégal ci biti foo ko natt rek weesu digganteem ak Mouammar al Kadhafi Kadhafi boo mm-hmm. koy wax daanaka màggalu Porokhane fii la lay fekk digganteem ak euh, roi bu Arabie Saoudi roi roi Abdullah Abdullah mm, Faysal diggante ak Faysal sax mm-hmm. waaw ñooñu ba amoon na ci relation maanaam xaalal na Sénégal mm-hmm. Mm-hmm. ay canaux yoo xam ne yu bare bare Yaasir Arafat ñoom ñëpp tabaarakallaahu parce que moom réewi arab yi yëpp mu ne def na ko ba mu des ak Irak. Mm-hmm. gis nañ ah, xam naa ni macha mm-hmm. ah, ah. allah mu mel ni waxtu bi waxtu bi moo ñu xaw a dëgg la amul woon fi jërëjëf waxtu bi moo ñu ñu bàyyi la nga nga tàggatoo waaw kay jërëjëf soxna Coro Oustaz Hassan soxna Fatou Serigne Serigne ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm mm-hmm. vraiment di kontaan xam ne fii suñu kër la waaye nag da ngeen am benn auditeur pire soxna Ndeye Mati Mbuub Ah. kooku daal moom moom moom day leen ko ziar moom daal Walf moom moom am moo leen ko gën a bëgg yéen soxna Ndeye Mati soxna Mbaye soxna Ndeye Mati Mbuub jarbaat la ci monsieur le maire Serigne Mbuub d'accord pire tabarakallahu ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal tawfiq ak taysir ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax baax imam waaye tam comme ni nga ko waxee di nuyu soxna Ndeye Mati Mbuub foofee ca pire mm. ñun nit ñu ngi lay jox sa wàccuwaay bu baax a baax foofu nga nga nekk ñu lay jaajëfal bu baax ak Fatou Diouf di la jox dig daje ni ko àjjuma incha allah. incha allah madame Cissé mi nga xamante ne ah, ci yéen la ko ah, ah, tamit <laughs> di ko nuyu di ko jaajëfal nekk nekk commercial donc di jaajëfal rek li eh, nga xamante ne ñu ngi doon suivre mhm. ci Walfadjri man sa bokk naa ci famille bi parce que sama benn maam mooy denc euh, euh, sëru imam imam sëñ Moussa Cissé donc ci famille bi la Diouf ak Cissé donc ànd ci ngi ziar bu baax ñi nga xamante ne ñoom ñooy famille bi